xalaat ba sonn ndeysaan saraxe nañu ay ay ganaar ay sax saraxe ngir rek bëgg seen waay bëgg coow li nga xam ne injustice la ñu teg ma coow loolu dakk ndax li wolof di wax coow ñëwul sax fan waaye nag li am solo mooy ñu yekkal la ci gaalu xaj mun na daal boobu ne waaye mu nekk fekk

ñu woote dialogue national ndax yéene yu rafet yu président am ah nga xam ne nag bëgguñu réew mi bëgguñu lu jaxasoo am fii ak féewaloo ak xeex def complot bu salté bi nga xam ne mosul am ci histoire politique Sénégal ndax kenn mosul gis pendant un mois rajo yi journaux yi internet bi grand place bi topp ci benn wax boo xamante ni. dem na bay xaar réew mi te amul lenn lu ci am c'est vrai que ñoom ils disent scandale du siècle mais scandale c'est le mensonge grotesque porté par la BBC manipulé certainement par l'opposition sénégalaise ngir gàkkal nguuru Macky donc loolu nekk na li nga xam ne moom moo lal mbir yëpp te wax nañ ko waxaat Sénégal nag ay mag yu baax ñoo ko samp mu dëgër te gëwuma ay yéene ay saay-saay ay pexe ay saay-saay mën na dañ ma yëgal ah piliers yooyu nga xam ne mag ñu baax ñoo ko samp ñoo ko samp leneen li tegu te dund naa ko yéen dund ngeen ko mooy mbir mi ba mu amee am na sumay adversaire ñenn ñi sax mun naa leen wooyee noonu lu nekk ci biir sunu parti yéen ñi ñuy jege président lool seeni depuis 2014 bi ma waxee tamit ba jéem a ñu commencé di fexe. di ma tàngal di ma wutal ay noon. di ma wutal di ma taxal. coow li mu ñëwee ñoom ci seen bopp nekk biir parti bi jege président de la république am na ci ñoo xam ne dañuy jël seen alal di ko ay opposants pour wax li mu def rek. am na ñoom. lu li am solo dama ciy sant yàlla mooy borom seen objectif mooy suul Aliou Sall contraire bi la yam ndax léegi Aliou Sall kat ndax dépassé na Sénégal niveau international. super international. kon nag. suul nekk ci parti bi te président seen wax jotagul bés bu jotee danaa ko wax danaa ko dox te